mi ngoog ayta Papa Keba dañ fi nekkal Papa Keba. waaw namoon naa la. maa ngi ni man kuy reer bi dem na. fan la dem. dem na bu yàgg. waaw ñu bees wàcc. nga yëngal àddina. tey na nga ñëw ci bisu euh, maanaam Pawlish Mbaye bi. doo muy laaj teewaay bi lan la rek. wax ma nag muy jàmm ak salaam. Mhm. Ah, donc yi fi xew te du jàmm. Mhm. bari kon bu jàmm ñëwee dañuy yàkkamti ñëw teew. Mhm. ma hmm? mhm. lan. ayca mi na lu bees tàkk ci sunu papa en 2024. c'est-à-dire. c'est-à-dire lu bees clip clip. Mhm. mooy ban clip. ah am na boo xamante ni gis nañ mi ngi waaj. a ah, single. ah kay ah génnagul. Ah, clip bi fu mu toll. moo tax ma la génnagul. ah, ah damay toog ci ay services rek. waaw bëggoon na yoo rek. tik tiktok la <laughs> clip bi fu ñu ak fan la waaj a yéen surprise. waaye doom ci clip sax kenn tourné gu ko. en exclusivité may ko sunu mbokk yi. sëriñ Bam sëriñ Bamba la lay watal. Seexu Xadim yàlla xam ne defaguñ sax clip. ah mais ruq-ruqaan li bees ni dégg fan yi ah, waaw loolu liggéey la boo xam ne mi ngi ci yoon ni nga ma sagalee nag. Ah. yal na la ko yàlla fay. nag maa sagal nag. tey tey ci laa ko wax. tey ci suba laa ko papa Kibar damay tudd. ma jarul nga ma ko wax dinaa ñëw parce que sama doom nga. yal na la yàlla suturaal. yal na yàlla taxaw te nag mosuma dem soirée ci musuma dem soirée mais li nga ma ñëwal dinaa la ñu ba sa xol bi sedd lii mooy nit nit boo amee bés waxuma la nga xam ko wala wala nga bokk ak moom bul bokk moom dara sax mais ñëwul ko ci bésam parce que bés bi rek mooy sama bés ku ci ñëwul bàyyi naa la ah. barke Seyduna Muhammad doom yombut wala yàlla may ay cheikh nag danga koy ndamoo di ko sagoo di ko def lépp nag Papa Keba damaa taxaw damaa sagal damaa sutural di nuyu sama xarit nag gis naa dooleem gis naa woote muy aadamoo taxaw na ma ci lépp yónnee na ma xaalis mhm. teral na ma yiir na ma aar na ma billahi wala un million cinq cent la ma yónnee oh. barke alxuraanu karim te nit loolu lay mhm. nitam adamo un million cinq ma ne na ma dama am Pawlish mhm. ma ko jiw ma ko mais damaa defal lu baax diwul ma teraanga te ma tontu xam naa ne lii nga man xam naa ne lii nga ci adamo dëgg la ci yow donc dama ci profité di ko di ko félicité moom euh, moom adamo parce que Adama comme aw ma numéro li nga wax ci Adama def xam naa ne dëgg ci yow mais dama fiy jaare man di ko félicité mais dama amul numéro te li ñu dajee Europe yëpp moo may yee sax na ma jógal heure bi jot na pour ma jouer ji mais numéro am tey jotuma am numéro am mhm. wax dëgg yàlla Adama maa ngi lay félicité di la ne yàlla la jig waaye li nga defal Pawlish mii ñëpp nga ko defal sénégalais yëpp nga ko defal. ñëpp a kontaan. Pawlish ni mu te Pawlish Mbaye ni mu koy waxee dëggal ci moom mais Adama encore une fois félicitation man dinaa fexe nu ma joxe sama cotisation mais yow. yow da ngay sama sa sa da ngaa saay saay mais yow sa yow da nga am sens ma bëgg la man. te yow damay sa nijaay di sa baay ca Pikine. boobu lii yëpp boobu lii amul boobu lii yëpp amul. mais mais mais nga jàpp nit ñi nax nit ñi nax nit ñi nax nit ñi nax nit ñi nax nit ñi nax nit ñi ba jël xale bi nax nit ñi nax nit ñi ba yàlla mel ay seet. barke tey góor ak jigéen. man ah. xanaa xamoo dof xanaa xamoo dof léppam day barke dof léppam day barke mais ba xam nga ne Pawlish man loolu la jox dama ci seetu ba te nag su may fete sama sama yàlla dogal xale yi màgg dañ màgg de waxal amin amin amin amin am njëriñ li ma toj lépp dinañ màgg am njëriñ am njëriñ yàlla yàlla dinañ màgg màgg am ñam am déedéet barkeel barkeel yu ma te am ay waajur yoo xam ne dina leen taxaw ba ba ñoom xale yi ñuy dimbali seen i wayjur parce que nag nit ku baax la nag lu mën a xaw yow fu la fekk da ngay fu ne da ngay ree dof dof lu nga nag ba nax sénégalais yi ba yàlla may lay seex. ah ah ba nga amee seex laa xam ne doo foo nag. déedéet ba nga amee ay seex laa xam foo. de artiste yi amul kenn am seex. Hmm? artiste yi est-ce que am na ku na am ku am ah, seex. non dañ ko artiste dañ ko mënut. ndax lan lu tax mënuñu ko foree seen àdduna seex yombul de. yàlla na. lu indi seex. lu indi seex.